yi nga xam ne ñoo fi nekk ñu investir leen da nga xam ne jël nañ kàddu te dinañ continuer jël kàddu ngeen xam leen bu baax a baax bu ci kanamee ñoom dinañ gën a waxtaan ak yéen mais tey fii ci Touba Mbacké dama fi bëggoon àddu rek ñeenti kàddu yu gaaw yoo xam ne waa Touba Mbacké dinañ ko dégg waaye dama bëggoon waa Sénégal dégg ko dafa am ay seetlu yu ma def taxaw seetlu seetlu yooyu ma am ci ay laaj yu may laaj bu ma ni man nag mooy ñun ñëpp waa coalition Aar Sénégal seetlu bu jëkk bi mooy dama gis ñoo xam ne dañuy def campagne yu burle xam ngeen burle mooy dugg ci car wala ci train ci oto boo xam ne waroo fa woon dugg parce que amoo paas nga buruxlu ba dugg fa da burle ma gis ne dafa am coalition boo xam ne mu ngi tudd Benno Bokk Yaakaar madame Aminata Touré Mimi jiite ko ñooñu dañoo seetlu ne dañoo burle parce que seen liste bii ñu demee élection député yi baaxul te conseil constitutionnel dafa ko waroon dafa waruñu woon bokk ci élection yi ñooñu jaay doole am police am gendarmerie am conseil constitutionnel am ministre de l'intérieur président Macky Sall jàppale leen jaay doole moo tax ñu boole leen ci élection yi te waruñ ci woon bokk na waa Sénégal yépp xam ne ñooñu campagne ñu burle la ñuy def c'est une liste clandestine composée de candidats clandestins yoo xam ne sénégalais yi waruñu leen voté bi nga xam ne moom la ñu gis dafa campagne fantomas fantomas mooy fantôme fantôme mooy loo xam ne kenn gisu ko kenn xamu ko kenn tegu ci bët ñi nga xam ne ñoom la ñuy jonganteel daf ci am liste opposition boo xam ne mooy yeewi askan bi yàlla dogal na seeni liste titulaire bokkul ñoom ñi nga xam ne ñu ngi campagne am nañu droit campagne waaye ñooñu buñ leen falee dañuy dem assemblée nationale ñun nag ñu yaakaaroon ne seen suppléant yooyu ay sénégalais yu digne lañ ay sénégalais yu baax lañ waaye pour ñu dem assemblée national dañ leen war ràññee xam leen gis leen xar kanam comme ça sénégalais bu leen di voteel xam ne man kat bu ma leen votelee ñii ñii ñooy dem assemblée nationale taxawal ma waaye dañoo gis ne ñoom dafa mel ni dañoo jur doom te bëgguñu wane doom ci dafa mel ni dañoo jur doom te bëgguñu Sénégal xam ñu xam ne ñii seen doom la. bu dee nag da am ay candidat da nga leen di wane ñuy attirer attention sénégalais yi ne ñi di campagne ci Yewwi Askan candidat ci liste nationale bi sénégalais yi xam leen loolu c'est très très très important ñetteel bi nag mooy dafa am tam ñoo xam ne ñu def campagne yàkkal ma parce ñooñu ñoo fi def campagne élection locale fal fi ay maire maire yooyu bàyyi leen fi dem ci Benno Bokk Yaakaar ak président Macky Sall ñoom ñoo fi def liste ñoom Yewwi Askan Wi ak wal ak Wallu liste boo xam ne balaa ñuy dem même ci élection yi ñu ci bari génn nañ ne dem nañ ci président Macky Sall te ñoom ñu ngi continuer di leen defal campagne te ñooñu ñooy wax ne waa Aar Sénégal ñoo liggéeyal Macky ki nga xam ne da nga am sa ay maire say maire bàyyi la fi dem ci Macky Sall nga defar liste ñi nga defar ci liste yi bàyyi la fi dem ci Macky Sall kan mooy liggéeyal Macky Sall loolu dafa war a leer léegi nag li Sénégalais yi war a xam mooy ñooñu bu ñu ñu wanul seen candidat yi nekk seen suppléant ba Sénégalais yi xam leen ràññee leen ëllëg bu ñu leen votélee ñooñu dem assemblée nationale amuñu benn garantie que ne ñooñu dañuy ci opposition parce que mën nañ dem ci Macky Sall te xamuñu leen. damay terminer mooy liste Mimi Touré baaxul liste Macky Sall la te Macky Sall liggéeyu fi lu tax ñu koy defaat majorité. donc benn bopp yaakaar bàyyi kan la ko voté ñi nga xam ne ñoo fi nekk ci opposition bi. ñun ñuy may campagne yu Fantomas ak campagne yu Yatal loolu lu muy teg mooy waa aar Sénégal kese ñoo fi nekk ñoo xam ne ñu ngi xeex président Macky Sall nekk ci opposition boo xam ne seen i candidat xàmmee ngeen leen xàmmee ngeen Thierno Alassane Sall xàmmee ngeen Thierno Bocoum xàmmee ngeen Abdourahmane Diouf xàmmee ngeen Rama jàppalee waa Sénégal bu ñu demee assemblée nationale ñoo leen fay toogal soxna mus ni xàmmee ngeen leen ñoom ñëpp ñun dañu taxaw wan leen suñu bopp ne boo leen ñu votalee ñun ñii ñooy dem assemblée nationale liggéey ko liggéey bu mucc ayib yeneen ñi seen i candidat xamuñu leen parce dañu leen di nëb ñu leen di sant di leen gërëm ci Touba Mbacké di leen wax ne la seule coalition visible ici qui fait un travail à visage découvert, la coalition Aar Sénégal. La coalition du pouvoir Benno Bokk Yaakaar ne devait même pas aller aux élections. C'est par roublardise et tricherie qu'on leur a permis d'aller aux élections. l'autre coalition Yewwi Askan Wi gens qui sont déjà avec le président Macky Et ils font campagne pour qu'ils fois et nous, ces gens-là, travaillent pour Macky Et ils continuent à dire que c'est nous qui travaillons pour Macky Il faudrait que les Sénégalais comprennent qu'on n'a pas le droit de faire une campagne pour des élections législatives en n'y allant pas à visage découvert. Les Sénégalais ont besoin de voir les visages des candidats de Yéhu Askandi sur la liste nationale. Parce que nous, au niveau de la Sénégal, nous vous donnons la garantie que Thierno Alassane Sall, Thierno Bokoum, Abdourahmane Diouf, Ramam Baké, Cheikhouna Bousso, Mousli Nogueï Diop, tous nos candidats, vous les connaissez et ils seront à l'Assemblée nationale pour vous cache ne pourront pas demain, une fois élus, aller travailler pour la lutte de Benno Bokyakar et dégarnir les rangs de l'opposition. Ce sont questions légitimes que nous nous La garantie que vous avez avec Aar Sénégal, c'est que vous allez régler le problème du président Macky vous allez régler le problème de la liste de Benno et vous allez régler le problème d'une opposition significative à l'Assemblée nationale